fekk nañ fi wax yu mel noonu waaye waxu wax yu waxu politicien la xam nga waxu dëgg dafa am ak waxu politicien te politiciens yi miinal na nit ñi waxu politique te président Macky Sall bu demee investir ci lu mel ni avion ñëpp xam nañ ñu du investissement personnel parce que avion ku ko jënd bu bees lu mu dee dee xanaa dina am fanweeri at te xanaa fanweeri at nag président Macky Sall lu ko nit ñi bëgg a bëgg it moom am na leneen lu mu nam bu paree ci réew mi kon yëf yi du investissement bu muy yóbbu këram du investissement personnel te réew dafa am xar kanam man mii jóge Màkka tey ba ñu fa demee nekk ministre des donc ñu jëlee la Riyad jël avion jël ay oto policier gendarme ñëpp ñu dem ak yow ba ca Kaaba ga ci wàllu ci waxtu wi nga xamante ne waxtu pandémie la loolu xam nga ne jox cër suñu réew moo tax te jox cër suñu réew dafa bokk ci sa réew am jumtukaay yi mu war a am suñ demee ba président Macky Sall di jël ay jet privé di def waroon naa gêner képp kuy sénégalais ngay politicien te fonk sa réew waroon naa laa gêné kon président bu wonee ne commandé nañ lu mel nii man li ma jàpp te patriote bu fi nekk dafa waroon a ne alhamdulilahi rabil alamin comme président am na gis-gis bu tax mu def lu mel nii kon nekk di ci wax dafa dafa yomb nag Sénégal boo nekkul imam nga taxaw di dingat imam waaye imam ba nekk imam xam paramètre imam xam li wër imam bu waxee imaamu moroomam rek moo war a mën a wax waaye Sénégal président Macky Sall buy apprécier pour def investissement képp koo xamante ne militant nga wala contre